mbokki Diourbel asalaamaaleykum ñu leen di nuyu di am mbégte ci teew fii di jiital ci nuyoo bi waa kër gu mag ak njabootu Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rasoul yi nekk fii yépp di leen nag ndax bëggoon nañ fa dugg bëggoon nañu fa dem ziyaara waaye xam ngeen campagne électorale dafa bokkul ak tournée nationale te campagne nationale li ci xaj bëriwul boole kook moo def ci ay kër kilifa daa di bu mbooloo bu dul jeex ànd ak ay sonorisation waaye ñu ngi leen di ziare bu baax a baax a baax di leen nuyu di nuyu waa Jurbel yëpp nag ñi fi teew fii te bëri lool macha allah tabaaraka ak ñi nga xamne ñi ngi ci biir kër yi di ñu seetaan ak ñi nekkul sax biir jurbel defena président de Fall ji wax na len wax ji yëpp mënuñoo dugg ci région de Jurbel té dañu dugg fi ci commune de Diourbel donte calendrier bi xat na trop ndax ñi ngi wara dem def tay département de Rufisque ak département de Pikine ñuy ñaari département yu rëy rëy waaye ñu won génn région bi té dugg ñu biir Jurbel li ko waral mooy importance bi Jurbel am ci ñun Jurbel symbole la Jurbel cosaan la waaye Jurbel dafa bokk ci li nga xam ne sooy lim ay ville ci Sénégal les villes fanion les villes phares munoo ñàkk lim Jurbel moo tax ñu ne woon faw ñu dugg Jurbel rawatina nag ni démb defe naa am na ñu fi jiitu waaye defe naa dugg nañ Jurbel ba génn benn waa Jurbel xamul ni waa ñoom dugg nañ biir Jurbel tey nag kenn fayu leen de billaahi kenn fayu leen mbokki Jurbel man dama am kontaan ci Jurbel am satisfaction nag

lok ni nga xamne moy symboliser la ville de djourbel moy mairie bi yeen da ngeen amone yene jox ko opposition mota ngeen voter massivement contre Macky Sall opposition djel mairie bi waaye goredi ak ñak mandu ñak doylu tax ki ngeen wolone ba jox ko mairie bi mu trahir même dem rejoindre Macky Sall ngir koppar duñ ko gis ngeen gis ngeen euh, amul lu gën a wàcce doomu aadama ci àdduna dul jaay sa bor amul amul ko gën a wàcce ci àdduna wóor na ma ci ko def tey biir bu Jurbel bien moom mooy maire bi suy dox biir Jurbel day làqatu ci koñ waaye nag foo gis trahison foo gis trahison ñaara ko seet foo gis corruption ñaara ko seet ki ñu corrompe ak ki ko corrompe moo tax ñoom ñaar ñëpp ñoo bokk ci suufe gi ñu suufe moom Macky Sall bi ñu dégg senegal ne ko fexeel ba ndaw ñi am liggéey yërëm leen fexeel ba dund bi yomb fexeel ba hôpitaux yi baax fexeel ba inondation jeex ci réew mi fexeel ba njàng mi baax fexeel ba kaaraange doy loolu yëpp est que mat na ci Sénégal benn matul deful lu tok toog palais de la république yor ay milliards caisses noires bi di wo ay maire di leen jox xaliss nan leen jógeel fi nga nekkoon ñëw seet si ma loolu amul lu gëna a suñu suñuy institution si àdduna dañuy wax respect des institutions mais respect des institutions ki ko war a def moy ki ñu jiital ci institutions yi est-ce que Macky Sall respecté na suñu institution yéen ngi dégg Jibril Ngom nga xamné mom la Yewwi Askan Wi defoon mandataire Matam mu daw ak suñuy liste daw ak suñu mandat Macky Sall recevoir ko biir palais jox ko xaalis loolu est-ce que respecté suñuy institution la Macky Sall xamul lan moo taxoon Sénégalais yi fal ko li taxoon ñu fal ko yépp dara defu ko ci tey Sénégalais yi sonn nañ ba mu sonn yem moo tax ma ne yéen waa Diourbel yéene gi ngeen amoon ci bokk ci communes yi nga xam ne ak département yi nga xam ne ware nañu Macky Sall seen gannaaw bu yàgg gis nga yéene googu il faut ngeen féddaliwaat ko ci élection yi waaye nag il faut mu gën a garaaw sax il faut làpp yi gën a garaaw Amata làpp yi làpp yi il faut mu gën a garaaw parce que loolu dafa am solo dañu génn ci élection boo xam ne localité yu bëri ci senegal Ndakaaru Pikine Rufisque Kër Massar Guédiawaye Ziguinchor Oussouye Bignona Thiès eh, ñetti commune yëpp ak ville bi ba ci Touba Mbacké ak yeneen ak yeneen ñoom ñëpp ak yéen ñii nag fii waa Diourbel ñoom ñëpp dañoo tourner la page de Macky Sall liggéey boobu lañu ñu war a yeggali xam ngeen ni ñu koy yeggali mooy fu Macky Sall ñàkkoon rek na fa ñàkk lu gën a yi waaye fi mu gañe woon il faut léegi ñu yeewu nag daal di rejoindre le train du changement loolu mooy solo élection yi tey nag balaa may wax tuuti ci programme damay wax lan moo ñuy gañeloo élection yi ak lan moo ñu ko mën a ñàkkloo lan moo ñuy gañe gañeloo élection yi bu mbaay mi neex na de baax na ñu ne eh, conférence des leaders ñëw na ñëpp génn topp ci baax na waaye li ci njëkk mooy yéen jeunesse de Diourbel yéen jigéenu Diourbel yi yéen magu Diourbel yi est-ce que ñëpp yor nañu seen carte d'électeur dama leen ko ñaan rek ku fi teew rek ci mbooloom te jotagoo sa carte électeur xamal ni yow Macky Sall ngay liggéeyal mbir mi du nekk ci mbedd mi daw ci caravane yi xeex bu jotee nga génn xeex te li gën a yomb mooy dem jël sa carte dugal ci urne bi Macky Sall jóge fi mënoo ko def te loolu nag sama mbokk jeunes la koy gëna wax jeunes da ngeen sagane élection torop lay voté ci jeunes néew na parce que rew mo xamné 65 ay jeunes lañu wallahi jeunes suñu bëggon changement même mag ñëpp suñu voté won contre ñu jeunes rek suñu bëggon changement changement motax tax ma ne leen ku fi téw fi te yoro yorogoo sa carte électeur bo joggé fii demal nga dem jëli sa carte électeur nana jaral nga raa suba ak ngoon guddeeg bëccëg na la jël nga def pression waaye na nga fexe ba jot carte électeur bi ndax mooy la clé du changement man leer na ma ni fii am na ñu jotagul seen carte électeur man xam naa ko ñooñu lay waxal ñii di yëkkati seen carte yor nañ ko ba pare waaye nag dem leen denc ko ci kër yi de bugguma mu réer fii ak dimanche bugguma mu réer ndax ñafal ñafal bi lii la carte yi la lii lañ koy ñafe ñaareel bi nga xam ne moo ñu mën a gañaloo élection yi mooy def campagne cinq jours moo des ci campagne bi cinq jours yooyu lañuy gañee campagne xam nga campagne départ bu rafet baax na de waaye finition bi moo gën a ti même alxuraan daf ñu naan wal aqibatu lil muttaqin gis ngeen loo def def def def te yow mujjantel bi rafetul dafa annulé te ñom nak cinq derniers jours yi lañuy yew ndax campagne ñu kenn bëggu fu ñu dem ñu derniers jours yi lañuy yor d'argent ñëw jënd nit ñi moo tax kenn ñun conviction suñu gën gëm suñu dëggu ak suñu programme ak suñu discours moo tax yéen ndaw yi bu leen tàyyi dem leen ci kër yi dem leen ci gare routière yi dem leen ci marché yi dem leen fekk Sénégalais yi fi ñu ne ngeen waxtaan ak ñoom loolu bokk na ci li ñu mën a gañaloo élection bi ñetteel bi nga xam ne moo ñuy gañaloo élection bi mooy gannaaw bu ngeen jotee seen carte génn dem voter massivement

élection bi raw gadou la lolou day arrangé Macky Sall loolu tax kenn ku nek de ñun def effort def sacrifice ba ñu waxtaan ba déggo ñu né Sénégal 46 départements la boo ci bolé diaspora bi muy 54 départements ñun ñi di yewi ñoo jité ci 28 départements 28 départements Wallu de jité ci 18 départements fi nak département de Diourbel Wallu moo fi moo tax ma ne bu leen juum ci vote bi bugguma kenn ne man Ousmane Sonko laa bëgg moo ne sama xol kon damay dem jël bulletin Yewwi boo ko defee Macky Sall nga voté de fii benn bulletin moo fi am mooy bii bii mooy sama bulletin bii bu kenn juum ku voté bii mën nga voté voté nga Ablaye Wade voté nga Déthié Fall fii ñaari député la benn député bi député wàllu la beneen bi suñu député yeewi la kon ñun ñi ngi ci biir liste bi amuñu fii liste bu ngeen duggee ci urne bi nag normalement dañuy teg huit bulletins yëpp romb leen bulletin yëpp ngeen jël bulletin bu jaune bii te photo président Ablaye Wade moo ci nekk bu ngeen ko defee voté ngeen utile voté ngeen vote bu am njëriñ voté ngeen voté bu fiy jëree Macky Sall mbokki Diourbel

inondation ci ndox mi la ñu nekk mas nañ coono mas ci ndox mi la ñu nekk waa 750 milliards yi Macky Sall ne def na ko ci inondation Sénégal fan la xaalis bi dugg est-ce que bëgg ngeen xam fu mu dugal xaalis bi bëgg ngeen ko xam jox lañ majorité assemblée commission d'enquête parlementaire la ñuy teg convoqué leen ñu ñëw dërëm bu nekk ci 750 milliards nañ ñu leeral fan lañ ko dugal ku ci lekk la waroon di ko gokki est ce bu ngeen xam loolu fu mu jox leen ñu majorité parlementaire ma scandale yi bëri na càccum xaalis yi bëri na xaalisu réew mi yépp Macky Sall ak njabootam ak randal nañ ko est ce ngeen milliards Sénégal jox majorité assemblée nationale mbokk ah li xew Sénégal yëpp moo fi xew mooy dund bi seer na nit ñi sonn nañu de fii est-ce que am na koo xam ne tey mun na ne ma ngay noyyi ni ma bëggoon noyyee est-ce que am na koo xam ne jeunes yi bëri ngeen fi de ñu ci bëri ci yéen célibataire ngeen ñu ci bëri ci yéen waaye nag am ngeen yërmande ci seen i parents tey lu ngeen fortaatu yóbbu jox leen est ceeb bi yomb na Sénégal est-ce que diwlin bi yomb na sama soxna si

xoolaatal budget bi dugalal teggil sénégalais importance assemblée nationale. motax ñu neul bu vote bi vote bi du mbirum nit bu mbirum nit parce que man fexé na ba ci liste bi fal mi ci liste bi kon ñun poste taxul ñuy daw réew mi ñuy daw bu ñu majorité suñu suppléants yi nga ñoy

ñu ngi leen di gërëm di leen sant bu baax di leen wax ni kontaan ci waa Diourbel